waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullah ah, mbokki waa Tiwaawan ak li ko wër ci turu honorable député maire Demba Diop ak ci turu conseil municipal de Tiwaawan yëpp tey dañu bëggoon a ñëw waxtaan ak yéen waxtaan ak askanu Tiwaawan ci tolluwaayu. liggéeyu mairie bi ak projet yi nga xam ni fan yii sumb nañu ko lépp jëm ci liggéey dëkk bi ba nekkin bi gën a jekk gën a rafet gën a yewel ci biir loolu nag tey jii ma ànd ak euh, ki nga xam ni mooy monsieur le maire Pape Momar Gaye nga xam ni moom la maire dénk lépp luy liggéey ci dëkk bi lépp luy travaux liggéey bu ñuy mënti def assainissement tali ak yu jëme ni ki loolu école yi tabax ak leneen marché moom mooy superviser liggéey boobu ci turu maire maire moo ko ko dénk pour mu koy xoolal di ko rendre compte euh, yoral li ñuy wax aussi cadre de vie maanaam nu ñu nekkee sunu dëkkin moom moo moom moo ko yor ndax yàlla def na moom xam-xamam dafa màcc ci loolu mu dëkk Tiwaawan xam Tiwaawan min Tiwaawan ah, ànd ko ak man aussi ma nekk adjoint maire ànd ko di ko ci jàppale mais aussi conseil bi conseil municipal dafa am nu mu bindoo dafa am ay commission dëkk bi dañ ko def ay pàcc maanaam ci li nga xam ne moom la maire bi war a taxawee mooy ay compétence am bu ci nekk dafa am commission commission boobu dafa am président ci biir loolu mu am le président Matta Bara Seck nekk ni moom tamit nekk président commission urbanisme ak aménagement donc moo nekk nii suñu wet ah waroon fekk feggoog ak sunu camarade Baye Mbaye Ciss moom yor euh, euh, yor environnement moom aussi waroon ci nekk ànd ak ñi nga xam ne nag ay techniciens mairie lañu muy sunu frère Ousmane Ndiaye moom ñu koy gën a xamee ci général Ndiaye moom mooy chef voirie commune de Tivaouane waaw donc mbedd yeeg lampe yi ñuy war a def ak lépp lu ñuy def rek ci muy nekk ci mbedd wala yooyu. wala muy leeral wala muy kii moom moo koy saytu tali yeeg yeneen yëpp li ci war a nekk moom moo koy saytu di rendre compte maire su ñu amee dañuy def tamit moom la maire di yebal ànd ak aussi suñu beneen frère ñu koy wax Aline Diop moom tamit nekk euh, ci brigade bi ñuy wax BRIC brigade d'intervention communal waa mairie bi mu ñëwee dafa jël ay xale yu bëri yoo xam ne tey jii tàggat nañ leen pour ëllëg ñuy wàcc ci terrain bi di accompagner population yi ci seeni droit mais aussi fexe ba ñu nekk nekk boo xam ne kenn du lor kenn ah du ñu lu ñu circulation bi jaar yoon marché yi jaar yoon école yi du ñu am xam nga oto jakarta yi du ñu daw daw bu bëri ah sunu sécurité d'abord ak li nga xam ne aussi moom la maire bi war a taxawee ñu fexe ba di ko yombal loolu mooy brique ñoom ñoo nekk nii. ànd ceeg uh, am Amadou Ndiaye donc uh, ñun ñu ñoo fi ñëw tey pour waxtaan ak askan wi Tivaouane par rapport ak liñ ñu dénk mais par rapport ak aussi foo ñu bëgg a dem uh, ci ay liggéey ndax umpale woon ni Tivaouane tey dafa dem ci yeneen dimension dafa am ci yeneen dimension bu ci njëkk mooy dañ ko yokk yokk bu am solo mu am ay projet routier yu bëri yoo xam ne maire bi mu ngi koy def am ay projet yu bëri aussi ñoo ngi koy def président indi fi hôpital indi fi tribunal départemental indi fi centre fiscaux yooyu nga xam ne ci dëkk yu mag yi rek ngeen ko naan gis mooy wane ni Tivaouane tey changé na statut dem na ci beneen dimension waaye li gën a indi dimension bi mooy jumaa ji nga xam ni macha allah moom la ñuy tabax nga xam ni léegi mu pare loolu nag buy ànd ak dëkk dëkk waa dëkk ba dafa war a am lu ñu taxawaay lu ñu war a taxawee te Tivaouane bu ñu waxee dëgg taxawaay yi rafetul jekkul ku mu neex lu la neex def ku mu neex fu la neex sotti sotti mbalit ku mu neex fu la neex sotti grava ku mu neex fu la neex def atelier mécanicien wala atelier soudeur wala atelier wala tabax mbedd tabax mbedd yi sax gis nañ ko waaw ah, amatul chaussée ah yooyu yëpp nag su amee ah maire bi nga xam ne moom la ñu dénk loolu war na jóg vraiment dem ko jubbanti ndax ci jamonoy jub jubal jubbanti la ñu nekk kon ci cadre jubbante boobu alhamdulilah ñun fekkoon nañ ci ndax daaw commencé woon nañu def ay action yu bëree bëri ci wàllu désencombrement boo la demee marché Kër Matar daaw ak la ko wër ak marché bi donte am kii na gisoon ngeen ñu def ay action yu bëree bëri liggéey boobu nag la ñu war a continuer continuer parce que dañu nekk ci nawet jëm ci gàmm lu ñu naan def bàyyi ba gàmm jot ñuy ñu sonn sonal nit ñi loolu la ñuy bañ moo tax liggéey boobu la bëgg continuer liggéey boobu nag incha allah ñoo ngi koy bëgg a commencer samedi 3 au mardi 6. Euh, loolu nag ci Pape Momar Gueye mii moom moo jiite liggéey bi ñun ñu ci ànd ak moom tout le conseil municipal toute la mairie mais toute l'administration centrale parce que ñi ñu war a bind yëpp préfet commissaire gendarmerie procureur ah ñi war a yëg yëpp yëg nañu. marché yi président marché yi ñëpp ba ba léegi concertation mi ngi dem moo taxoon nag ñu woo leen pour waxtaan na askan yi ndax ñu dégg xamal ni maire bi ñoom lay liggéeyal la li ñuy def defuñu ko pour vraiment yàqal leen wala pour indi leen ay dommage mais dañ ko def pour en tout cas fexe ba dëkk bi am beneen xar kanam donc maa ngi bay gën a guddal mënoon a ibile sunu frère Pape Momar di ko jox kàddu gi moom mu wax liggéey bi nan lay demee ak lu muy ñaax waa Tivaouane lu mu leen di dénk ci turu l'honorable député maire Demba Diop Sy voilà merci beaucoup. rahmatullah ñu ngi euh, jël nuyoo bu tedd di ko teg ci loxo sunu xalif général Serigne Babacar Sy Mansour mu jàllaleel ñu ko ci njabootu maam Cheikh Sidi Hadj Malick yëpp jàllaleel ñu ko ci mbokku jullit yëpp. jàllaleel ñu ko ci waa Sénégal yépp duma ma dellu si ci présentation yi parce que yaakaar naa ni ko monsieur le maire Cheikh Ahmed Tidiane Diouf honorable député waxee honorable ni mu ko waxe leer na ci collaborateurs yi nga xam ni ñoo ànd fas yéene am liggéey boo xam ni dañ koy def ci turu bureau municipal ci turu conseil municipal mais surtout ci turu monsieur le maire l'honorable député Demba Diop Sy euh, ni ngeen ko xamee dafa am ay liggéey yu am solo yoo xam ne maire bi sumb na ko at yi passé mais surtout at mii nga xam ne ci la ñu nekk duma ci dellu siwaat ci xóotal monsieur le maire wax na ko ku nekk gis na daaw taxawaay yi nga xam ne am nañ ko ci marché bi nga xam ne moom la ñuy woowee marché Kër Matar ak na mu meloon désorde bi fa amoon encombrement bi nga xam ne moom moo fa nekkoon ak situation salibirité bi ba marché bi tolloon mu nekkoon loo xam ne ñëpp mettitlu woon nañ ko yàlla dogal ñu def ay taxawaay yu mat sëkk ba tey ji marché ba ku fa dem zone boobu ku fa jaar di nga sentir ne changé nañu xar kanam ga ci loolu lañu ñu entamé ay travaux d'assainissement yu am solo loolu mosoon wax nañ ci fan yi paase yaakaar naa ni taw bi fi jot a am ku jaar ci yenn axe ci dëkk bi dinga xam ni liggéey bi ñu def réussir na bu baax a baax ci kaw loolu ñu am leneen lu ñu sumb tey loolu lañu ñëw di ci waxtaan ak euh, waa Tiwaawan du waxtaanu teg fitna du waxtaanu xëbal waxtaanu woote la waxtaanu diisoo la ndax dëkk dafa am fu muy toll foo xam ne ñëpp dañ cee war a dugal seen loxo ni ko monsieur le maire waxee léegi jamonoy jub jubal jubanti lañ toll waaye tamit li ñëpp bokk na ci ñëpp def seen loxo pour mu jàkk tey am na zone yoo xam ne ku fa jaar di nga xam ne lii rafetul ci xar kanamu Tiwaawan am na ay bërëb yoo xam ne tey jii pour nga dem fa am na coono bu méttee métti nga xam ne moom ngay daj pour egg fi nga xam ni moom nga jëm at yii di ñëw comme niñ ko constaté ñu jëm ci gàmm yu xaw a metti tuuti parce que day dugg ci biir hivernage kon lépp lu ñu war a def pour leeral dëkk bi pour désencombrer yoon yi pour que nit ñi am foo xam ne fa lañ mën a aw facilement dafa jot ñu def ci ay taxawaay yoo xam taxawaay yu mat sëkk la Tivaouane du dëkk bu ndaw Tivaouane dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am une dimension internationale ñëpp yaakaar ko ñëpp di ko suivre kon dëkkuwaay bi war nañoo mën a fexe bu mu mucc ayib mais li nga xam ne tamit moom la ñu bokk muy mbedd yi war nañ ko sàmm ba tey kuy romb ci dëkk bi di nga xam ne lii dëkk bu ñu defar la dëkk bu ñu taxaw la dafa am décor boo xam ne amul dëkk booy romb ci Tivaouane ci Sénégal ba gis fa décor bu ni mel loolu dinañ ci ñëwaat léegi ci axe yi nga xam ne moom la ñu fas yéene vraiment euh, désencombré mais ci kaw loolu bi ñu waxtaanee ak monsieur le maire ak le bureau municipal ñu ne duñ ko def n'importe comment dañuy utiliser une démarche inclusive ci kaw loolu ñun ñii nga xam ne ñun ñoo toog fii tey ci la ñu maire jox ndigal ñu àndandoo dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo occupé mbedd yi nit par nit cantine par cantine groupe par groupe bàyyiwuñu kenn ku nekk saafonte nañu ak yow waxtaan ak yow sensibiliser expliquer la te liñ lay njëkk a laaj mooy est-ce que jàpp nga ne décor bii nga xam ne moom nañu nekk rafet na ci xar Tiwaawan wax dëgg yàlla ñu am ci ay réaction yu positive yu bari ñenn ñi dangu nañ ci saa si ñoom ci seen bopp ñoom ñooy proposer ay solution ñi nga xam ne nanguwuñu woon tamit bokkuñu woon ak ñoom gis-gis yaakaar naa ni bi mu defee ay fan yu néew def nañ ay déplacement ñëw ci monsieur le maire pour sàkkuwaat waxtaan kon mu mel ni ñëpp wala ñi ëpp boog d'accord nañu ne dafa am ay axes yoo xam ne il faut que la fa nekk ñu jëlee ko fa bu fekkente ne bëgg nañu Tivaouane quand xar kanamam mel na nga xam ne moom la war a mel ci waxtaan woowu am nañ ci résultat yu bari nit ñi li ñu soon souhaité te ñun fekkoon na booba ñu ngi ciy def ay pexe mooy ñu jàppale leen utal leen foo xam ne tamit dinañ fa nekk ils ont bien utilisé moo jàppale parce que tamit ñun teguñu leen fa nekk na phénomène boo xam ne phénomène bu yàgg la dañ ko fee fekk mais comme maire maire yi dafa taxaw taxawaayu yaay bu fekkee ne da nga am sa njaboot mu toog foo xam ne waru faa toog bu la yàlla dimbalee nga am possibilité naxanteeg moom dimbali ko ba yóbbu ko feneen loolu da nga cay taxaw loolu la ñu maire santoon bu subaa incha allahu taala dina am ay sites yoo xam ne dinañ dem gën leen a identifier parce que dañoo bëgg opération bii nekk opération boo xam ne ku ci ne da ciy gis sa bopp. gis ci sa bopp ci boo yeewoo nga xam ne fii am na num meloon melatu ko mais nga gis ci sa bopp ti xam ne yow it nekkoon nga foo xam ne waratu waroo foo woon a nekk ñu jële la fa mais tamit ñu fexe ba dimbali la utal la fa nga xam ne di nga fa mën a continuer sa liggéey. moom la monsieur le maire wax xëy na buñ ko defoon ci gàmm gu jege lool dinañ ne dañoo bàyyi ba gàmm gi ñu perturbe ba ñu yàq suñu liggéey moo tax ñu jëlee devant teel ci taxaw teel ci jóg pour waxtaan ak nit ñi ginnaaw waxtaan wi nag am na ay action yoo xam ne dañ ko war a def euh, tey boo jëlee axe bi nga xam ne moo commencé fi ñuy woowee monument ba jaar sapeur pompier ba dem kër Penda Yéeri foofu ku fa jaar di nga xam ne lii fi xew nekk na loo xam ne war nañ cee taxaw waxtaan nañ nag ña fa ne ñoom it ñaanoon nañ ñu parce que samedi bii di suba ci lañ waroon a commencer opération bi ku ci ne joxoon nañ la kayit pour wax la ne bis sàngam bëgg nañu ngeen jóge fi ngeen nekk parce que maire bi dina ñëw ak matériel boo xam ne bugguñoo yàqal kenn ginnaaw si nag ci la ñu ñëw ñaan monsieur le maire ne ah samdi bii dafa jàmp ci ñoom loolu moo tax tey ñu ne bu ñu wootee dinañ leen joxaat xibaar boobu xamal leen ne mayaat nañ leen ba samdi 3 mais tamit nañ ñu jàppale jàppale seen bopp ba buñ ca yeggee na nekk loo xam ne ñun ñëpp dinañ ci déggoo bu kenn ne dañu fee dañoo fekk sama bagage ñu yàq ko bu kenn ne dañoo fekk sama matériel bi may liggéeyee ñu salfaañe ko ndax li ñu waroon a def lu ne yaakaar naa ni def nañ ko kon axe boobu fas yéene nañu incha allah samedi foofu la ñuy njëkkee jël nañu matuwaay yëpp jël nañ disposition yi nga xam ne yëpp moom lañu war a jël pour que bu soobee yàlla bu ñu fa jógee bu ñu fa jaaree ba jugee fa ku fa romb di nga xam ne fii am na jàmbaar yu fi jaar am na liggéey boo xam ne population yi moom la ñuy souhaité def nañ ko. ñu bëgg bu ñu jugee ci samdi incha allah bu dimanche tey ku ne xam ne fii nga xam ne moom mooy ginnaaw mairie bu njëkk ba moom it dafa dem ba buñ ko bàyyee noonu dina dem ba dootul nekk mbedd alors que tali bu yaatu la am liggéey yu am solo yoo xam ne moom la ñu engagé def ko mooy tey boo xoolee gàmmu Tiwaawan bu jotee nit ñi bu ñu toppee raay bi ba ñëw fi ñuy woowee kër Badara Ba ba tourné daanaka foofu la ñuy mën a jaar pour génn si fi ñuy woowee avenue Aline Paala Mbaye muy fii ci Fogny mais yoon boobu xel xalaatul jaar fa ak oto ak tànk waxatuma la ak oto loolu tamit nee nañu dinañ ci def ay taxawaay ñoom it demoon nañ seeti leen waxtaan ak ñoom kenn par kenn pour que euh, dimanche bii la waxoon mais ñu dàq ko ba bële di ñëw le 4 ñu leen ñaan ñu jël seen matuwaay balaa ñuy ñëw fekk ne li ñu war a def def nañ ko ba xajal nañu parce que dinañ xàll yoon wi ndax dañ fa war a ubbi une piste d'abord boo xam ne après dañ koy bitumer ci même jour boobu. dinañu dellu si fii nga xam ne moom mooy euh, marché bi ñu woowee marché bu tas avonu Serigne Babacar Sy na yàlla yokk leeram mu ngi commencé ci gaar bi jaar buntu police bu njëkk bi waroon a jaar ca marché ba continuer ca buntu xabroom jàll ba ci deux voies Sancipédi yi mu nekk avonu boo xam ne tey boo ko tiimoon ak droom avenue bu ko gën a jub fii Tivaouane amul avenue bu ko war a gën a jekk amul avenue bu ko war a gën a taaru amul mais yàlla dogal fa ca marché ba ne tablier yi teg fa seen i ba tey jii bëri na ñoo xam ne boo leen waxoon ne leen fii mbedd moo fi nekk duñ ko gëm loolu nag defoon nañ ci ay efforts yu mat sëkk daaw góorgóorlu woon ak équipe municipale bi ba jële leen fa mais yàlla dogal ñoom it ñu def seeni ay pexe ba jëllu siwaat foofu moom dinañ ci def tamit ay taxawaay ba dimanche incha allah ñu ngi leen di ñaan ku fa am matériel boo xam ne buy yàqu la na nga ko fa jële parce que bu gaa yi egsee liggéey bi nga xam ne moom lañ leen sant dinañ ko def comme ni mu waree mooy ci biir marché bi nga xam ne bi alentour marché commerciale boobu yépp lépp loo xam ne encombrement la rek dinañ ci def ay taxawaay pour jële ko fa dimanche bu ñu jógee ci tali bi ci ginnaaw mairie foofu la ñu fas yéenee gontu li des ci journée bi ñu mottali ko fa bu ñu xëyee altine fii ñuy woowee avenue El Hadj Malick moo commencé ca romb euh, fii mairie moo continuer jaar marché jaar gaaraasu watiir continuer romb angle école 2 continuer jaar ndut moom moo continuer jaar Kër Matar ba fi nga xam ne moom mooy gaaru ceer tey mën nañ ne foofu mooy avenue principalu Tivaouane parce que ñëpp fa ñuy jaar te mooy avenue bi nga xam ne moom moo gën a mag moom moo gën a accessible pour egsi ci fi nga xam ne moom mooy xuru xuruma jumaa ji mais tey foofu pour circuler fa lu ne ngay daj foofu aussi ñu ngi lancé appel ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk te débordé occupé tali bi ñu jàppale ñu jàppale seen bopp ba bu ñuy ñëw altine fekk lu ñu fa tegoon lu yàq ñoom tamit ñu ràndal ko incha allah bu ñu jógee foofu dinañ continuer delluwaat ci marché Kër bi parce que marché boobu dafa nekk li ñuy woowee un point nodal maanaam ci seet ci ci xolu Tiwaawan la ne tey boo xoolee liy romb foofu ci ay nit kenn xamul nu mu toll naam dégagé woon nañu ko ba nga xam ne ñi occupé woon booru euh, talib yépp def fa ay mbaar jëlee nañ leen fa te xam nañ ne lañ leen defal moo gën parce que dugal nañ leen ci biir aménagé nañ ko mais aménagement ba des na liggéey bi des na foofu aussi dañoo fas yéenee jaaraat settali ko sunu paree ci opération boobu dinañu joxewaat yeneen xibaar parce que lii dañ koo commencé mais fas yéene ñu taxaw tant que Tivaouane asseniruñ ko ba mbedd yi leer nañ comme ni ko kilifa yi bëggee comme ni ko waa dëkk bi ñaane ay ati ati ngi nii ci ginnaaw ab dëkk dañ koy defar municipalité boo ko yoree la nga xam ne moom nga war a def ci ay taxawaay pour que nit ñi seen dëkkuwaay ñoŋ seen nekkin baax dalaa war a jaral lu ne ci kaw loolu comme niñ ko waxee léegi euh, ñuy fàttali tamit ñi nga xam ne ñooy jaay mango te nekk ci tali bi su ngeen fàtt su ngeen xoolee bu baax yéen a ngi gis engin wu AGEROUTE yi ñi nga commencé ca côté lam-lam di ñëw programme national la boo xam ne ñoom dañoo fas yéene yokk tali bi te loolu dafay continuer ba Saint-Louis te jaaykat yi yi nga xam ne yépp ñoo nekk ci tali bi woowoon nañ leen préfecture te yaakaar naa ni kenn ku ci nekk am na fu gars yi jaar ak yow ci wàllum ndàmpaay pour wax la ne ne préparé wul fii ngeen xam ne moom ngeen nekkoon ngeen jàpp ne sax yéen a ko moom jox nañ leen ndàmpaay pour ngeen jóge fa loolu aussi ci point yi nga xam ne moom lañu fas yéene dem identifier pour settali ko pour yóbbu leen fa loolu aussi bu soobee yàlla bu subaa dinañ ci def ay jéego balaa ñuy egg foofu dinañ leen xoolal place yu baax yoo xam ne dinañ fa mën a nekk nekkin woo xam ne nekkin yàgg lay doon dinañ ko aménager la ca dinañ ko def parce que mairie bi loolu moom mooy yitteem fas yéene képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllum commerce ñu jàppale la ba sa liggéey nga mën ko def comme ni mu waree. Euh, fii ñi nga xam ne aussi moom la ñuy woowee euh, réseau bi foofu aussi waxtaan nañu ak ñoom ñoom it ñëw nañ fi am na lu ñu wax ak ñoom am na loo xam ne aussi nar nañ ko bu subaa incha allah dinañ ci def ay jéego te bu ñu demee ba nga xam ni jàpp nañ ne liñ leen di proposé baax na ci ñoom. dinañ ko waxtaan ak ñoom parce que ñëw nañ fi ñu def ay échange yu am solo te fas yéene nañoo continuer ko te dañoo bëgg incha allah euh, balaa ñuy dugg ci en désencombrement bi euh, kenn ku ci ne comprendre ne lii nga nekkee gënul waaye tamit jàppale nañ la ba nga xam ne danga mënoo taxaw fenn ne loru nga ci même situation boobu lañ ko defoon commencé woon nañ ko ak ñi nga xam ñoom ñoo nekk ginnaaw maire yi ñu ngi koy continuer noonu la ñu def ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci axe Penda bi ñu ngi koy continuer mënaguñ cee wax exactement mais comme dafa dañoo nekk ci recherche de solution waaw bu ñu yàlla dimbalee ba ñu am ay solution dinañ leen ko baaxee la même chose est pour ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw gaaru ceer bi foofu tamit da ngay gis aussi nit ñi xaw nañoo implanté wu façon boo xam ni xaw na doy waar mais ci biir loolu ñun dañoo jiital vraiment recherche de solution incha allahu taala bu ñu yàlla dimbalee képp koo xam ne jëlee nañ la fa bu ñu amul fu la yóbbu tamit dina am lu ñu la proposé ñun nag duñu ñu ne ñëpp dañ leen di recaser mënuñoo wax fii tey ne am nañu possibilité boobu waaye dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan parce que maire yi comme ni ma ko waxee ci biir euh, politique bu yàggul rek créé na benn commission boo xam ne euh, nuñ koy wooye développement local la ak euh, économie locale pour jàppale nit ñi pour nan la ñu mën a fexee ba suñu koom mu dëkk gën a suqaliku ndax bu koom-koom li koom-koom bi suqalikoo rek ku ci ne di nga ci gis sa bopp ci kaw loolu aussi c'est valable pour axe bi nga xam ne moo nekk Carrefour nga xam ne moom mooy xolu Tiwaawan foofu aussi dinañ fa def ay descente mais balaa boobu ñu ngi informer nit ñi que nañu jël seen matuwaay yi nga xam ne moom moo moom moo war pour que wax dëgg yàlla lépp loo xam ne luy yàqu la wala lépp loo xam ne mënoo koo muñ bu yàqoo nga jëlee ko fa loolu daal nekk na un appel solennel boo xam ne monsieur le maire demandé woon nañu ñu lancé ko à l'endroit des populations pour que ñun ñëpp ñu bokk gis-gis bokk jëmuwaay xam ne defar Tiwaawan ku ne la war kenn ku nekk boo jàppee ne yow mii Tiwaawan nga dëkk Tiwaawan ngay noyee Tiwaawan nga gëm war ngaa def sa kéemtalaay kàttan ba ku fi romb Tiwaawan mën a méngoo ak dayoo bi nga xam ne moom la am loolu moom mooy sunu taxawaay moom mooy sunu yitte boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bu ñu demee aussi ba am leneen loo xam ne war nañ ko baaxee nit ñi ci recherche solution yi nga xam ne jiital nañ ko bu sooba yàlla dinañu wootewaat pour que ñu mën ko waxtaane pour que ñu mën a diisoowaat euh, yaatal mbir mi ba nga xam ni ku ci ne di nga xam ne Tiwaawan kese moom moo la ñor Tiwaawan tamit fas yéene nga cee dugal sa loxo ba mu nekk dëkk boo xam ni dina méngoo ak ni ko kilifa yi waxee woon dëkk dëkku diine bu toll nii comme na ko sëñ ab du waxee waxoon na ne Tivaouane dafa war a nekk une ville du futur noonu la ko waxee woon une ville du futur nag dafa am xar kanam bu mu war a am waxoon na ne Tivaouane dafa war a nekk une ville paisible moderne mais paisible noonu la ko daan faral di waxee dal gi dafa am loo xam ne moom la war a àndal ci dëkk boo xam ne dañ koy assenir dañ koy désencombrer sécurité mën faa nekk kilifa dëkk bi mi nga xam ne moom mooy xalifa bi bis bu nekk ci loolu lay soññ monsieur le maire pour que ñu defar Tivaouane pour que Tivaouane nit ñi gën a dellu siwaat ci cadre discipline comme niñ ko waxee tey boo duggee ci dëkk bi am na ay ruq-ruqaan yoo xam boo fa duggee yow sa bopp dangay ngay rus tellement que nit ñi dañuy ñëw foo xam ne leer na leen ne fii mbedd la ñu ñëw tabax fa mais est-ce que loolu tamit ñun en tant que autorité dañoo war a toog rek di seetaan dañoo war a toog rek bàyyi dëkk bi mu continuer ci façon bu mel noonu fu neex waay lal fu neex waay tabax fu neex waay sotti fu neex waay tuur lu neex waay def loolu yaakaar naa ni ku nekkul autorité sax boo gisoon ñu koy def ci dëkk bi war na laa metti boo ci amee pexe war ngaa taxaw pour que loolu dañ fi loolu moo doon solos woote tey bi ñu leen sant di leen gërëm bu fekkee ni am na ay laaj yoo xam ne tamit bëgg ngeen koo laaj ñu sottante ci ay xalaat parce que yaakaar nañ ni population yi loolu mooy seen yitte loolu moom la ñu bëgg loolu moom la ñu namm ci dëkku maam Cheikh Sidi Hadj Malick bii ñu nekk